asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi xam naa ne bu ngeen déggee xasida yooyu yii ci kër Sëriñ Tuubaa gi fii ci Paris war ngeen a xam ne am na luy bëgg a xew ana liy bëgg a xew lum mu doon mooy li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada moom la bëggoon mooy taalibe yëpp àndandoo nekk benn yàlla dogal am ñu ko doon dox baag si fii tey mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci Paris gépp ci biir France gépp àndandoo bokk ndey bokk baay bëgg a def benn bis muy bisu màggalu Tuubaa gi nga xam ne ñëpp dañuy maase àndandoo def genn màggal xam ne du am ñaari màggal du am ñetti màggal loolu mooy bitu waxtaan wi léegi nag ginnaaw nga xam ne demee na noonu mboolem daayira yi nga xam ne ñoo comp ñoo composé jamiya bi ànd nañ ci ak daayira yi nga xam ne ñoom lay bëgg lim nii waa kuréelu Touba Tawerni ak waa Nuurul Maayidi ak waa Jaawartullaaha ak daayira Jaaribatul Maraaxib ak Bustaanul Arifin ak kuréelu Baay Faal Sikrullaahi ak waa Taysiirul Asiir kër maam jaar Buso ak waa Nuuru Daare ni ñoom ñëpp ànd nañ ci li nga xam ne moom la waa jam yi bi bëgg ak daayira yi ko composé mu ñu ñëpp ñu àndoo def genn màggal waaye ci loolu nag ñu ngi woo mboolem suñu bokki jullit ñi nga xam ne ñoom lañu bokk réew mi rawatina suñu bokki tiijaan yi ak waa ñaseen yi ak xaadir yi ak laayeen yi wunu kenn waaye ñu ngi insisté nag bu baax waa mu mutahaabina fillaahi ak waa mustarsidiina wal mustarsidaati ak waa cene bayi bàyyiwunu kenn ñi ngi woo itam bi nga xam ne mooy kër maalaw bu 19e loolu la ñu waxoon ne nañ ko jottali mbooloo mi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki lislaam bi rawatina ci suñu bokki taalibe yi ñu bokk yaakaar Cheikh Ahmadul Xadim Xadimul Moustapha yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te jiital ci nuyoo bi nag sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke xalifatul ham fii tariqatil muridiya may ñaan mu yàgg fi lool te wér ba naar yu rëy yi mu naalal maamam ji yàlla dëbb ko kartan gu mu ko mën a àggalee ca na mu ko bëggee te ànd ko bépp julit lii nag tey bu ngeen ko gisee ñu def ko day bëgg-bëgg sëñ eh, sëñ Sidi Muxtaar sëñ Sidi Muxtaar waxul tax murit waaye lislaam ci boppam la bëggan ñu bennoo bëgg ga ko bëgg na ba lone ne mu jaralan ko ko mel na ne yàlla nongul na ko ko te fekke na ko ca ba lislaam bépp benn la démb dong biñ ñu fiy bi ñu fi wàcc fii ay kamil kilifa gu mag wàccub liggéey ñu doon ko ñaanal ci kër sëñ Tuuba gii sëti Alaaji Malick Si ñoo fi jaxasoo ak sëti sëriñ Tuuba ñu bokk kaamil di ko jàng ci ngeen mu sel ñaan yàlla yool ba bépp ñu jox ko ki nga xam ne moo jiitu woon kon naaw nag moom lislaam doon benn mooy li ko ñoroon kon bu ñu takkoo sa niw say doon jënn jëmm màggal yëpp ñu fas ko yenee dee ànd ndax wax dëgg yàlla lañ daan def baax na quartier bu nekk wala commune bu ne ña fa nekk di tër bi dajaloo bu màggal le 18 safar ñoom ñëpp ñu daje fi benn salle dafa jàng di fa jàng xasaayit di fa def ay salaatul ala nabi bu ñu nee léegi bu ñu gisee ne léegi àndandoo doon benn takk mbir mi def ko def ko sayu matt ni ko cirif si benn béréb li ñu bëggal sëñ bi dinañ ko mën a am ci sëñ bi li sëñ bi bëggit ci ñoom dina ko mën a am ci ñoom moo tax ñu bëgg a boole seen xalaat ak seen seen yéene léegi di ko defandoo biñ la ko waxee nun magi déyële bi nun ñëpp a ko rafetlu di ñaan nag seen ànd bi ñu ànd la ko yàlla lal yàlla jiitu ca yàlla nekk ci digg bi yàlla mujj ci bu ci kenn wërta gis sal sa bopp ci dara ndax ànd boo xam ne yàlla rek a ko lal wëruñu caa tàggoo ànd boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek a ko lal dañ ko war a ànd àndin wu rafet kenn ku ne li mu yéene boppam mu yéene ko moroomam te itam taalibe boo xamante ne yàlla dogal na ci moom mu xër ga tax mu def yoo xam ne yëfi xër ci la bu ñu ko boo wax ko ko mu tal cee génn bu ko defee ni ngeen bëggee ànd bi yàlla ci dimbali nit ci seen ginnaaw dina ci jàppale guddi ak bëccëg suba ak ngoon fu ngeen nu woo feeg noo ngi dund rek incha allah dinañ fa ñëw fekk euh, bokk ak yéen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah di ñaan yàlla bu baax di ñaan yàlla Cheikh Sidi Al Muxtaar yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér di ñaan Serigne Cheikh Jëmbu Fall fi yàgg lool te ànd ko àggale rek ci li nga xamante ne si moom la suñu kilifa yi wax léegi te mooy li nga xam ne moo jëm ci màggalu Tuubaa ji. di sant bu baax a baax nag ci ànd gi nga xamante ne si sunu borom defal na ñu nañu feex ba ñu booloo te bëgg ko def te muy màggal gi màggal gi nag dafa doon loo xam ne maanaam ndigal la lu bàyyi ko ci ku tedd ki te murit la koy jariñ mooy wéy ci ndigal kon jàpp naa ni ci ndigal la ñu ne noo ngi ñaan bu baax a baax ndigal loola ñu ne yàlla nañ ci sunu borom defal tawféex ba ñu defe ko ni ko Cheikh Ahmadou Bamba bëggee di ñaan yàlla saa borom ñu defe ko na ko Cheikh Ahmadou Bamba bëggee te it sëriñ bi nangul na ko di ci soññ nag bu baax a baax a baax mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ci soññ képp koo xamante ni si yaa ngi ci France di ñaan yàlla saa borom ñu àgg ca ak jàmm te lépp loo xamante ni si day jagal bisub màggal gi noo ngi ciy soññ mbokki taalibe yëpp muy lépp loo xam ni dafa jëm ci màggal gi ci wàllu addiya yi ci wàllu organisation bi népp nu muy jaare yoon rek noo ngi ci soññ mbokki taalibe yëpp di sant bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp ñu yàgg fi lool ci barke maam Seera Fall tan yàgg koo ànd. ngeen gisee jataay bii nga xamante ni dara taxu koo jog lu dul màggaluk Tuuba fi nu ciy tàbbee rek mooy ak fàttalee nga xamante ni keroog ba Tuuba bii di yóbbu sëriñ bi ci géej gi la doonoon seen seen mébét mooy nous allons l'exiler jusqu'à ce que les agissements liés à ces enseignements soient oubliés à jamais au Sénégal kon nag bu yàlla defee ba nu ñëw fii ci France. te tubaab yooyee amalante woon kook sëñ bi ñu ñëw bii ba France gii di fi woote bisub sëriñ Touba kon loole war naa doon ab soññe doon ab jaaj ci mboolem bépp taalibe tegaat ca ni ko sëñ Moussa Ka daan waxee naan ca mooma aj at leen génne cheikh ya Touba di aye jélli di aye tool ba taalub sëriñ ba daal di fay fa Touba ak Mbàkke cey tey ka wuuteeg booba kon nag bu noo gisee jataay bii nga xamante ni ci réewu tubaab bi lañ nekk ci Paris ci capitalu France di fi wootewaat màggaluk Serigne Touba googee taalibe bu ko gis rek rawatina noo koy def te di ko ànd ak mboolem mbokki taalibe yi mboolem daari daayira bu nekk ci Paris gi ànd nañ koog yow kon nag ñu ngi ci woo ñëpp te di ci soññu ñëpp te nu lu ci def ci lu ñu man ak lu nu mënut ndax mooy benn biss bopp ci la Serigne Touba woote ndimbal buñ ko mënee tudde noonu nga xamante ni nee na képp ko nga xamante ni sama mbég sama mbégte la bu bis bi dikkatee nag ma ci santale sama borom nan daje ceeg tawféexi Serigne Touba jërë ngeen jëf bisimilah barke Cheikh Ahmadou Mbacké yaa xayra mun senin waxaabi xasbala wa xayra mun senin xabaabi basmala murit yi nekk ci dëkk bi bitim réew mën a nekk dañoo dem a dem ba xam ni am na luñ mënta ñàkk balaa ñu fay jóge muy ngërëmal borom Tuubaa kenn ku ne mënoo koo ñàkk balaa nga fay jóge faw nu am ko te gis na ne li nu ko mën a may mooy booloo doon benn moo nu mën a may ngërëmal borom tubaa moo nu mën a sottilit yërmandey suñu borom ngërëmal borom tubaa nag fi ko gën a mën a yaakaare te mu gën a gaaw mooy màggalam gii mu woote bis yëpp mën nañoo daje ñëpp góorgóorlu ci sa jaamu ci yàlla jàng ci xasida ba mu jàll waaye budul woon ak màggalu Tuubaa gii bis yooyu ñuy woote sax du am moo tax it jamono ji mu daan am Île-de-France yaatu na yaatu goo xamante ne ni kenn ku ne daana nekk fa muy nekk di ko fa màggal ndax eh, yaatuwaayu dëkk bi sëriñ bi taw féexalul nag ba ren gii mu def ko ci xelu doomu aadama yëpp xam ni daje bi mënta ñàkk ndax moom ba muy jógee ca eh, réew ma di dem ci géej gi fekk na li yàlla doon jox ku baax lépp jël na ko teg ko ci loxoom te teewul mu jóg dem ci géej gi te bi muy dem ci géej gi ñun ñii kepp a taxoon mu dem ci géej gi tawféex googu nu sëriñ bi defal nag ngir delloo ko njukkal bu bisam bi jotee waroon na ci ñun ñëpp ñu daje doon benn say jébbal ko ko xamal ko na ko doon nañ benn te fas yéene nañoo doon benn ba keroog nuy faatu mag ñi jiital leen sunu kanam ñun ñu topp ci seen ginnaaw. kon ñoo ngi ñaan ci barke xaadimal Moustapha Mbacké fépp fu murit nekk ci àdduna bi na xam ni màggalu tubaa gi Île-de-France dinañ ko boole def ko benn ñi daan génn di màggali. nan xam ne ren gii ñëpp fi la ñuy màggale ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ci biti mënuñoo ñëw na nga xam ne ren gii dañoo war a ñëw ndax màggal gi genn lay doon incha allahu rabbi noo koy yëgal muritu France gépp di ko yëgal muritu Europe gépp di ko yëgal muritu Sénégal yëpp ñi nekk Sénégal gi ñi nekk bitim rek fu mu mën a doon ñoo ngi leen di xamal loolu te it danañ jàllalewaat beneen waxtu woo xamante ni danañ xam waxtu wi fi ñu koy defee ak naka lañ koy defee ak bis buñ koy defee ginnaaw bu Serigne Sidil Mokhtar joxee ndigal ni wax ni màggal gi bis sàngam lay doon noo ngi soññee itamit ci ni ñu ko jëriñ waxee ci wàllu addiya gi ni ñu ko waxee te di xamal ni li nga xamante ni moom la Cheikh Sidil Mokhtar rafetlu kenn amul sikki sàkka ni loolu la Cheikh Ahmadul Xadim rafetlu ndax sëriñ bi mooy tànn ay ñu ko fi wutu kon bu ñu yàlla taw féexale ba mu dégg ci noppam yi daal di jàllale kàddam daana loolu rafet na yàlla dimbali ba rafet googu yàlla na sax dàkk darajee xaadimal Moustapha Mbacke noo ngi jéggalu bu baax kàddu yi tey ñaan sëriñ bi Cheikh Sidi Mokhtar yàgg fi murit yi yàgg fi ci ginnaawam ñëpp am ngërëmal borom Tuubaa te ko ci 18 safar gi jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum mbokki julli mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu bu baax di sant yàlla bim nu boole ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa fii wax ji ngeen fi wax yépp kenn mënu ci dolli dara lu weesu rek ñaan ak fàttali ne li ngeen def tey du lenn lu weesu rek jëfe ndigal lu yàgg loo xam ne ndigal moom du jeex mukk fi jëfewuñ ko ci li ngeen def tey lu yàlla mosa digle la naka jekk lu sëriñ tubaa mosa woote la lu Cheikh Mourtada doon dox la kon bu ngeen demee ba yéen ñëpp seen xel euh, ànd euh, jot ko seen xel dëppoo ci loolu duñ man lu dul rafetlu ko ni ko képp ku baax di rafetloo képp ko xelam rafet di rafetloo ndax lu baax la ci lu baax moom euh, lu baax rek lay maa doon kon duma man lu dul ñaan yàlla rek yàlla dimbali nañu ñëpp nu defee ko ni ko sëriñ bi bëggee te mooy àndandoo màggale ko màggalam gi nga xam ne daa waxoon na ko ci ñëpp sant la yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ginnaaw ma sant yàlla maa ngi julli ci yonent bi salaa salaam di sant sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di ñaanal sëñ Sidi Maxtaar mu yàgg fi te wér maa ngi ñaanal sëñ Mamoor Mbàkke mu Cheikh Ahmadou Moutada mu yàgg fi te wér si seen digal nag la ñuy wootee bis bi nga xam ne nii moom la sëñ Tuubaa digal kon nag maa ngi ciy woo soxna yi. daayira maam jaare yi nga xam ne ni ñoo nekk Île-de-France bi yëpp ñu ñoom ànd ko ñun commencé ci daayira maam jaar tey surul assir ci njiitu soxna Fàccaam ak daayira nuuru daayira ci njiitu soxna Galo Dieng ak daayira fusti ci njiitu soxna maam Fall ak daayira jësbul xuróob ci njiitu soxna ne Ndiaye ak daayira yi nga xam ne ñëpp ñoo nekk Île-de-France bi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi laxasu di liggéey soxna jaar ñoo ngi leen ciy woo ñu teel a ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi teel a ñëw ci réunion yi ñu xam niñ koy doxalee ak organisation bi ñu bokk ci ñun ñëpp ñu àndandoo liggéeyal Serigne Touba ci bésam bii nga xam ne moom la ñu sant pour ñu santale ko ci yàlla ñu ngi ciy woon ak tijaani xaadir yi laayeen yi ak ñëpp nga xam ne képp kuy wootee ashadu an la ilaha illa wa ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñoo la ci woo nga ñëw ñu sant la yàlla Serigne Touba ngir ñu jàkku ci ngërëmu yàlla yonent bi ak Serigne Touba ngeen jëf